awjaba alayna zakat alfitri tuhratan lilsaaimi mima asa an yakuna qad waqaa fihi min allaghwi wa rafas wa li takuna awnan lilfuqarai walmuwisiin wa tajibu zakatu lfitre ala kulli saxirin aw kabirin sakarin aw unsa xurrin aw abdin min almuslimina saaan min kulli saaan min kulli nafs yuxrijuha almuslimu alxurru almaliku li miqdaari saa yasidu an xóotihi wa xóoti ciyaalihi yowman wa layla wa talsamuhu an nafsihi wa an man wa an man tajibu alayhi nafaqatuhu ka zawjatihi wa abnaihi wa xadamihi alladina yatawalla umurahum wa yaqum bil infaaqi alayhim an ibni abbasin radiallahu anhuma qaal farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakaatal fitri zakaatal fitri tuhratan lissaa'imi min allaxwi wa rafas wa tuhmatan lil masaakin waxtu wujubiha wa axiru ramadan waxtalafu fi taxdiril waxt alladi yajibu fiha fa minhum man qaala inna waxta wujubiha xurubu sams leylata alfitr li anna waxtu alfitri min ramadan wa minhum man qaala inna inna waxta bat i wujubiha tuluuxu alfajri min yowmi al iid wa faidatu lixtilaaf fi lmawludi qabla alfajri min yowmi al iid aw ilmawludi baada maqibi samsi min leylati alfitr hal tajibu alayhima sakatu lfitri am la fa ala alqawli alawal la tajibu alayhima li annahuma wulida baada waxti alwujub wa ala alqawli alsaani tajibu alayhima wa ala walidayhima إخراجه إخراجها لهما لأنهما ولدا قبل وقت وقت الوجوب ويجب إخراجها قبل الصلاة لأن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ولا تسقط بعد الوجوب بالتأخير بل تجب بل تسير دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العمر أيها الإخوة من نعم الله سبحانه وتعالى أن جوز لنا إخراج زكاة الفطر قبل وقت قبل بدء وقت الوجوب بيوم أو يومين قال ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال النافع وكان رسول الله وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين أيها الإخوة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرغب في صيام ستة أيام من شوال an abi ayub al ansaari radiallahu anhuma anna rasula sallallahu alayhi wa sallam qaal man saama ramadana suma atbaahu sittan min sawal fa ka annama saama daar rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi laxirati xasanatan wa qina adaba naar rabbana taqabal siyamana wa qiyamana waj'alna min alladina an'amta alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhadaai wa saalihina wa xasuna ulaika rafiqa ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di tàllal suñuy loxo ci waxtu wu tedd wii nga xam ne ci lañ nekk muy fan yu mujj yi nga xam ne mooy fan yu mujj ci weeru koor ak bis bu tedd bii nga xam ne mooy mooy ngën ji bis yi ñu ñaan ci suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan mooy borom man li nga xam ne moo jaaxal doomu aadama yépp te moom képp moo ci man dara yàlla nañ ko seppil ci àdduna sépp ba mu ba mu jeex fi tàkk jël ci ñi nga xam ne itam da jot na leen a dal bañ bañ ñu wér di dee di ko dellu di ko tàllalaat suñuy loxo di ñaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kàttan mooy borom man sëñ Cheikh Cheikh mu taxaa mi nga xam ne moo fi nekkal sa sëriñ tubaa te di taxaw tey taxawee diine ji suñ borom gën koo kàttanal gën koo dëgëral gën koo may ak wér ak ak tal ba li nga xam ne moom la mooy yéeneem te kenn ku ne xam ne ne yéeneem rëy na lool ci lislaam li yéeneem nag yàlla na ko suñ borom defal ba defal ko ci lu kawe njortam ñun ñi nga xam ne ñoo ko ànd ak moom itam suñ borom boo nañ ci pay googee nga xam ne moom la ko war a fayee defal ko itam képp ku dib jullit te lislaam tax laa jóg yàlla na la suñ borom sàmm yàlla na suñ borom taxaw ba li nga xam ne yéene nga ko def ci lislaam nga def ko ci def yéenu ko weesu jot tey jii nag liñ bara waxtaane yaakaar naa waxtaan la woo xam ne ñu dégg nañ ko ba tàyyi waaye téewul nag comme dañoo toll ci waxtoom faaw ñu waxtaane ko loola mooy asakay murum koor asakay murum koor dafa doon loo xam ne bokk na ci jagle yi nga xam ne moom la suñu borom def ci weeru koor ndax xam nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne laysa siyaamu min al akli wa surb innama al aklu innama siyaamu min al laxwi wa rafas fa in saabaka ahadun aw jahila aleyka fa qul inni imru'un saa'imun yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne koor mooy ña du ne rek mooy ñàkk lekk ñàkk naan waaye koor day mi ngi ci doo wax waxi caaxaan doo ko def doo kenn tam du danga nga da nga góorgóorlu ànd ak sa muñ ba kenn du la yëngal loola mooy koor loola nag kon bu bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi dañoo xamal ne koor du ñàkk lekk du ñàkk du ñàkk naan kese waaye mi ngi ci doo def lu doo defi caaxaan doo ko wax kon caaxaan yooyu dafa mel ni lu rëy la ci def ko kon ci ci koor lu ci rëy la kon nag bu suñ borom ci ci ci baaxam ak yërmandeem ak bëgg a fay doomu aadama yi ci koor ndax lim lim xam le ne moom képp moo moom koor te moo koy fay te bëgg na bu ñu koy fay mu mat sëkk loola tax na nag mu war a mu farataat ci ñun asakay muurum koor ba loolee nga xam ne mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bokk mooy koor li li koy tax liy tax mu doon koor dëgg-dëgg mooy doo waxi caaxaan doo ko def kon caaxaan yooyee ak nga xam ne ak wax yooyee nga xam ne mooy waxi caaxaan yi ñuy def te mën naa bañ a nekk suñu tayeef waaye ma matadik doomu aadama rek duñ ci yóbbu yonent bi suñ boroom nag def na defal nu asakay muurum koor ngir caaxaani wax yooyee ak jëfi caaxaan yooyee suñ boroom di ñu ko teggil di ñu ko faral ci biir koor gi kon loolu mu mel ni bokk na ci xéewal yi nga xam ne suñ borom moo nu ko defal ci biir koor muy xéewal yoo xam ne bëgg na rek suy fay koor mu mat sëkk ba ñépp boo koy jot ko ci nga jot ko ci jotinu kawe sa njot loola nag kon xéewal bu bu farataalee ci ñun muurum muurum koor ngir mu def loolu kon dafa mel ni xéewal la goo xam ne gu ñu suñ borom defal ngir bëgg rek bu ñuy fay koor mu doon lu mat sëkk kon mu asakay muurum koor moomu nag képp kuy jullit rek moo xam góor ga moo xam jigéen nga moo xam mag nga moo xam ndaw nga ah, dalaa war waaye xam nañ ne ndaw day amul lu mu war a mën a génnee kon am na koo xam ne moo ko war a génnee génneel ki nga xam ne mooy ki mu war mooy bépp jullit rek boo xam ne am nga loo xam ne mat na sa dépense tey ci añ ak reer nga desal nag loo bi nga amee loolu ba noppi nga desal loo xam ne mën nga caa génne asakay muurum koor kon bu ko defee nag loola moo lay daal di war kon nga war a génne asakay muurum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu Ibnu Abbas nettali dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo asa moo wax ne moo farataal ci ñun ñu génne asakay muurum koor nee na nag génne googee nag li muy def li muy def ci ñun mooy caaxaan yi wax ya ak jëf wax ya nga xam ne moom lañ doon def moo mu mu tegg ko ci koor gi ba koor ga sell na mu war a selle def ko da koo def itam ak ba li nga ba ñi nga xam ne ñoo ñi nga xam ne mënuñu seen bopp bisub korite ba yàlla jox leen ñu am kàttan goo xam ne danañ ci mën a bokk ak jullit ñëpp ak feetu te duñ ci ànd ak ak jaaxle xel duñ ci ak ànd ak itam ak jaaxle goo xam ne mooy lii nan la def ba taxaw ba man mën cee bigal suñu njaboot ni ko jil ni ko doomu aadama yëpp di defee léegi nag ñuy laaj ba xam waxtu la Ah, génne asakay muurum koor di war léegi nag loo loolu ñi ñëpp xam nañ ne ci ci buñ ko dee tënk moo di ne bu koor gi di jeex ci lay war waaye nag ci ban waxtu lay ware loolu am na ab ay wuute yu ci am ñenn ñi wax ne buñ xasee dog koor te wóoruñu te xam ne suba la ñuy wari rek kon buñ dogee koor gi bu jant bi sooyee bañ dog gi te xam ne suba la ñuy wari rek foofu la ah, war gi di am di tàmbale ñenn gi wax ne déedéet kon na ta mi ngi tàmbali ci bisub bis bi nga xam ne mooy bisub korité bi te bisub korité gi mu ngi tàmbali ci bu jant bi maanaam bu bu fajar jotee kon ñenn ñi loolu la ñu wax ñii dañoo wax ne bu koor gi jeexee rek lay lay war lay daal di tàmbalee war ñenn ñi wax ne déedéet mu ngi war ci bi nga xamee ne dugg nañ ci bisub korité bi loolu nag li ko li tax ñu wax ko mooy day day day am loo xam ne mën naa xew te loolee di xew kon kam xew ci moom nan lañuy def jëflanteeg moom mooy mën naa am koo xam ne benn nit koo xam ne mi ngi juddu ginnaaw bi nga xamee ne jant bi sona ci weeru koor am koo xam ne itam mën naa juddu ginnaaw bi nga xamee ne fajar njëkk ñuy fajar bi jot ci weeru koor ki nga xam ne dafa juddu ginnaaw bi nga xamee ne maanaam jant bi sona ci weeru koor ci bisu bi nee suba lay koorite gi wala mu juddu njëkk fajar njëkk maanaam mu juddu njëkk fajar ndax moom itam ndax kooku danañ ko war a génneel asakay muurum koor wala dañ ko ko war a génneel ñu ne ki nga xam ne bu dee ci ñi nga xam ne dañoo wax ne bu jant bi xasee so rek la kon ki nga xam ne ginnaaw bi jant bi sooy la juddu kon ñooñe moom waxuñ ne asaka war na ko waaye bu asakay muru koor warees su ko génne ñi nga xam ne nag dañoo wax ne bu fajar jotee la la asakay muru koor di war gi te tàmbali kon ñooñu kon ñaar ñoo ñi nga xam ne dañoo juddu njëkk fajar wala ñu juddu ginnaaw bi nga xamee ni jant bi sona du tee kon asakay muru koor dañ leen ko war a génneel seeni waay judd moo leen koy génneel ndax bi waxtu bi bi ñuy war fekk na ñu nekk ci kaw suuf war nañ leen koo génnee léegi nag asakay murum koor moomu dafa am waxtu boo xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tànn wax ne ci lañ ko war a génne ndax buñ ko defee danañ ko def ci defin wi nga xam ne moom la suñ borom bëgg ñu defee ko ko loola nag mooy ñu génne ko njëkk ñu julli julli korite gi koo xam ne nag génne da nga koo génne ginnaaw bi nga xamee ne julli korite gi def nañ ko ba noppi nee na déedéet ñàkku aw yiw de waaye da ngay xam da nga jàppe ne la nga génne sarax la te kenn ku ne sarax yi itam xam na ne suñ borom dana ci fay lu rëy waaye boo ko génnee njëkk ngay julli moom li suñ borom bëgg ci lim lim digle ci wala lim nu bëggal ci la caaxaan yi wax yooyee ak ak jëf yi caaxaan yooyee ci ñu sellal ñu sellal ko ci koor gi kon danañ ko amee noona waaye bu fekkee ne nag ginnaaw bu ñu jullee ba noppi lañ ko génne loola dafay mel ni saraxa na bu buñ joxe waaye joxewuñ wuñ ko ko bëgg ni ko suñ borom bëgg ginnaaw bi itam ñuy laaj ndax asakay muurum koor koo xam ne xas na la war nga sàggan ba defoo ko ci waxtu wi nga xam ne moom nga ko war a génnee ndax day li muy tekki kon day mel ni asakay muurum koor mu wàcc na la déedéet bu la xasee war moom dootu la wàcc doonte di feeg yaa ngi dund rek na nga xam ne war na la danga ko war a génne kon loolu mooy li nga xam ne moo ñu war ci asakay muurum koor ginnaaw bi itam ñu xam ne yoon ngir suñ borom def ak jàpp ndal ci jullit bi ndax xam nañ ne faja maanaam bisub korité bi mën naa am ay xat-xat yoo xam ne dara tax ba ni mu bëgg a génne asakay mënu ko dëkk ko mën a génne ndax sañ na ko génne njëkk bisub korité bi loolu itam am nañ ci loo xam ne lislaam jàngal nañu ko ci moo di ne ibnu omar dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne nañuy génne asakay muuru kor njëkk ñuy jóg di jëm ca jullikaay ba nga xam ne moom la ñuy jullee koor moom la ñuy jullee korité naafiya nag nettali wax ne ibnu omar moomu nga xam ne moo wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne nañuy génne asakay muurum koor njëkk ñuy génn jëm jëm ci jullikaay ba moom de daana ko génne ñaari fan wala benn fan njëkk bisub korite bi kon mu mel loolu jàpp ndal la ci ñi nga xam ne bisub korite bi mën nañoo am ay xat-xat ba duñ ko mën a génne ci bis bi ñu mën koo génne njëkk korite gi ci benn fan wala ba ci ñaari fan ñu xam ne itam am na loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daana ci daana ci soññee loolal lool ngir bëgg rek aw yiw aw ak ak xéewal yéene ko ñi nga xam ne ñooy xeetam wi moo di ne daana soññe ci ñuy woor juróom benn fan ji ci weeru koor ci weeru korite wi buñ ginnaaw bi nga xamee ne koor gi jeex na nee naa yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne loolu ku koy def dafa mel ni yaa ngi woor sa àdduna sépp loolu nag li muy tekki mooy dafa mel ni yonent comme suñu borom dafa wax ne man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha képp koo xam ne def nga benn yiw fukk la lay fay kon dafa mel ni bu ñu wooree weeru koor dafay mel ni woor nañ fukki weer kon mu des ñaari weer ñaari weer yooyu nag bu ñu wooree juróom benn fan yooyu dafay daal di mel ni kon woor nañu at mépp ba mu jeex loolu kon mooy li nga xam ne moom lañ war a gën a góor góorgóorlu ci fas yéene ba lépp loo xam ne mooy jéem a mooy matal suñu jaamu yàlla di ñu dimbale ci ñu taxawee di nga xam ne moom lañ war a taxawee ñu ñu sant ci suñu bor ñu ja ñu gën di ci góorgóorlu te di ko def ndax xam ne suñ borom xéewal rek la ñu bëggal yërmande rek moom la ñu moom la ñu yéene comme moom mu nga xam ne nag moom lu baax rek la ñu bëggal yërmande rek képp itam la ñu yéene nañ fexe ba yéene joojee mu am ci ñun bu ñu ko bu mu ko gën a bëgg xam nañ ne sax mënuñu de gën a bëgganteeg suñu borom waaye ñu def suñ kemtalaay kattan rek di nga xam ne moom la li ñu bë yonante bi di nga xam ne moom la suñu borom bëggal ñu def ci suñ lay kattan ci def ko loolu kon mooy li nga xam ne moom lañ doon waxtaane tey ñu ñaan suñ borom mi nga xam ne mooy borom kàttan tey mooy borom man xam nañ ne day doomu aadama matut dañoo doyadi te doyadi gi yàlla moo nu ko bindaale waxul xal insaanu daifa lay suñ borom wax kon doyati gi nga xam ne moom lañ suñ borom bindee te moom mi nga xam ne moo mën a matal ay jëf yàlla nañu dimbale ba lépp loo xam ne def nañ ko ci weeru koor wi ci ak matadi wala ak ñàkk tegu ci fi ñu war a tege mu dimbaleel nu boppam ba teg nañu fi ñu war a tege dimbaleen nu boppam ba la mata di mu mottalil nu ko dimbaleen nu boppam bu bokk bañ bokk ci ñi nga xam ne ñi moom lay mbaayaan la ci biir koor gi ndax xam nañ ne fukki fan yu mujj yi waxtu waxtu la woo xam ne suñu borom da ko def mu doon loo xam ne da ciy mbaayaan la ay doomi aadama kon doomi aadama yooyu nga xam ne ñoom la ciy mbaayaan la muy jullit yi yàlla nañu suñu borom boole ci ñi nga xam ne ñoom lay mbaayaan la loolu suñu borom man na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada